salaamaaleykum salaamaaleykum kumba am ndey kumba amul ndey dafa xew ci réew mi gaañ ki waral coow laa ngi ni nga muy Mandiaye sekk ah tey lu fekk ko fii ah ci euh, rond point Ngor bi Birame bi en face euh, le Pape ah moom moo nekk nii Mandiaye ah, euh, gis nañ ah, boo xoolee coow li dañ ko saf-saf Mandiaye bi mu demee noonu loolu mooy si secret. waaw alhamdulilah yàlla moom mooy seet des fois neexee rek ñu def ko. Mm-hmm. Eh, Mandiaye benn bàyyi faal rek. ku woyof bëgg ñëpp nag fonk ñëpp fonk ay way juróom loolu boo ko ko defee yaakaar naa ni ah, ah, ah, nit ñu nañ la sopp nañ la bëgg waaw loolu kese la waaw di nuyu samay way jur la Papa Ousmane ak sama yaay yàlla guddal seen fan ak la famille Faramaré waaw mais dafa mel ne yow dañu gis ne Mandiaye dañ ne Mandiaye amul yitte quoi Mandiaye dalay romb du la nuyu affaire yooyu mais Mandiaye loolu lan la daay taar la wala lu mu doon. déet waay déet waay eh, yàlla xam na ni eh, bañ naka ba doomu aadama yi sax dama leen ruus. Uh-huh. su ma rombee damay ah, sëkk. waaw nuyu leen jàmm santeeg ñoom doog a dem. xëy na ñoom xamul rek. waaye àdduna moom eh, bu dee bu dee yitte rek. Uh-huh. yaakaar naa ni bëgg man man man ba bëgguma si benn sama benn morom ëpp ma. Uh-huh. ndax doomu aadama yi rek laa foog. mais sa digganteeg Sidi Diop. waaw ma gis ne dafa mel ni sa tànk bëriwul te dafa mel ni yéen ñaar yéen bokk même benn label bi muy suba teel. Euh, loolu lu mu demee noonu. waaw euh, euh, maa sotti say def si bi suñu kilifa moo ñu jiite ñun ñëpp vraiment. Mm-hmm. man maa ngi koy mu nekk bu baax di ma jàppale ci sama carrière. Mm-hmm. mën naa ni suba teel artistes yi fa nekk yëpp ku ci nekk da ngaa signé waaye man rek maay seul artiste boo xamante ni. maa ñëw ci Matar. di liggéey ak moom. Eh, te ba bañalu ma daa mhm. vraiment dafa mel ni sax dama signé ak moom. wax dëgg yàlla mu nekk grand bu ñàkk ci ñàkk. sonn ci sama yëf. di koy nuyu de passage. loolu dëgg la mais Mandiaye dafa mel ni yow doon nga fi benn album yaakaar naa ba toggoon album bi mu ñor nga ànd koog Baye Gaal mais léegi dafa mel ni jamono ji boobu ba léegi euh, bi Baye Gaal quitté ba léegi album boobu dafa mel ni. déggatuñ ko daal dafa mujjee mil wala nu mu ko téye bi nu mu demee noonu Wally Seck ko téye wala wala Baye Zala ko téye la. waaw yaa am xam nga album boobu. Hmm. dañ nekkoon di ko enregistré maag Baye hmm. yàlla dogal mu am ay ndox mais vraiment yàlla sotti na ci ndox bu sedd. Hmm. te euh, euh, muy Wally Seck. maa ngi koy nuyu moom de passage sama grand bu ñàkk ñaan vraiment muy mu nekk ko xamante nag moom la yat wi daal ñun rakam yëpp ñu topp ci am mm-hmm. wax na ci def ci ay kàddu yu rafet. waa comme mag Baye Sall amoon na lu xew suñu diggante. Mm-hmm. mu defar lépp vraiment entre mag ak rakk la. Mm-hmm. àdduna nag bañ ak làmmiñ ñuy dëkk. yenn saa yi ñu laale. waa waaye nag bu waxtaan amee toog am lépp jeex. mais ma jaay mën nañ xaar sa diggante ak Baye ba xam ngeen àndaat liggéey. waaw waaw diggante Baye Sall nag wax dëgg yàlla. maa koy nuy bu baax nit ku baax la. waaye actuellement nii nag Pazis. Eh, maa ngi ci ay loxo. waaw ku ci mel ni Matar. ak mhm. sama papa Ousmane Seck. Mhm. waaw nekk Ousmane. Mhm. sama sama sama sama sama sama sama label la. di sama di sama yëf. sa ndono waaw sama ndono. ma uuf ko. pour bëgg ko doxal. mu jëm ca kanam. dëgg la kon daal album bi mën nañ xaar mu génn wala fu mu toll yow génn nga ci sa xel nu mu demee noonu. album bi day génn incha allah parce que léegi ma jot bi soobee yàlla. maanaam ci ndigalu kan Wally Seck moo wax Baye Sall pour mu parce que euh, ñëpp ne nan euh, Wally mooy patron Baye Sall waaw mooy kilifaam donc te yaakaar naa ne comme moo ne kilifaam bu ne Baye Sall nag jot naa ci nag jot naa ci ndax ndigalu Wally parce que wax na ci lu rafet vraiment. Mm. léegi ba ne question bi la moo tax nga ragal koo laaj ma Ndiaye. <laughs> waaw non xam nga Sénégal comme dafa bëri mën mën a commentaire dina tax tam ñu jàpp ne da nga da nga soxoree Waly wala da nga ko ñaan wala dara loolu loolu problème bi. mais comme Waly mooy kilifa gi di kilifa Baye Sall. te ah. ñëpp xam na ne Baye moo nekkoon ménageur kii di Mandiaye Seck donc Waly gis ko soxla ko dem récupérer ko. comprendre nga donc bu ko récupérer pour man euh, war na ko bàyyee au mois li nga xam ne albumam la war na ci mën a dox ay jéego bu baax a baax ba albumam Mandiaye Seck bi mu jot ko man loolu loolu loolu moom. léegi Bada. waaw mën nga laaj kan mooy ménager am actuellement. waaw kan mooy ménager am xanaa ku dul Paco Mboup. waaw comme d'habitude Paco mooy ménager am. Ah, waaw waaw mais ñu ngi gis soirée yi instant yi mu ngi def benn ravage boo xamante ne ci internet bi mm-hmm. ñëpp ñu ngi naan soirée Mandiaye soirée Mandiaye ambiance bi am lëmbal bi fay am mm-hmm. kon toog bi nga toogoon yëpp lëlu Mandiaye mën nañ xaar plus li ngay wane ci soirée yi incha allah wala fi nga yem bu soobee yàlla mën nañ xaar de plus bu soobee yàlla ak album bu bees tax incha allah mm-hmm. mi ngi ñëw pourquoi pas ci euh, euh, bu ñu korité ba pare ah bu ñu korité ba pare bu soobee yàlla dinañ am album bu bu bu boo xamante ni liggéey naa ko liggéey bu mucc ayib. Mhm. liggéey boo xamante ni sénégalais yëpp xam naa ne ñu ngi koy xaar. Mhm. te mbalax pur et dur. Mhm. bu saf sap. bu soobee yàlla. non gisoon ne ça va léegi ma Ndiaye dernière question ma lay laaj ndax ma Ndiaye am na soxna wala amul soxna. amagul soxna. ba léegi nii. waaw am ah, ah, soxna. loo ci wax. waaye bëgg naa am soxna ngi namp ci xale ah, bëgg naa am soxna nag. waaw kon doo jël ci xale amoo gel. nit ku ne bëgg bëgg nga. am ah non amoo amoo gel. amoo gel waaw fi mu ne moom musique bee sama gel waaw mais nag bëgg a am soxna d'accord waaw parce que boo amee soxna day tax di nga di nga mën a concentré wu ci sa carrière c'est ça man sama dernière question ba da xamalal la mooy futur Mandiaye ak ay projet Mandiaye hmm. ay affaire internationale ak ay tournée hmm. ak futur ak projet loo xamante ni daal hmm. sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar ndax Mandiaye bi ma doon gis en 2017 2018 2019 2020 21 Mandiaye boobu moo nekk di dekkiwaat nii ndax samedi jot man yaay ñëw ci almadi bi di buuxante ne ay moromam te muy feesal bu boîte bi loolu bada loolu loolu loolu man jaay dama bëgg wax ñu futur am fan la jëm ak musique Sénégal effectivement waaw fi ma jëm ak musique Sénégal pasis mooy comme ni ko papa yi defee rek mm-hmm. bëgguma ko yàq benn yoon mm-hmm. waaw ñoom fi ñu jaar rek fa laay jaar mm-hmm. àdduna nag sotti ceeg def si la waa da ngay da ngay liggéey te muñ te doyloo yàlla waaw yàlla suñu borom dafa ànd ak woy muñkat dëgg la waaw boo muñee rek yàlla ñëw dëgg la góorgóorlul nga ñafe hmm. nekk ci sa yoon te bañ a bañ a bañ bañ a bañ a a bañ a xuloo bañ a xeex hmm. waa bañ a wax wax kenn lu ñaaw maa ngi ci sama yoon te bëgg naa doxal comme ni nga koy waxee woon dans en deux mille dix sept hmm. deux mille deux ba deux mille dix neuf ah noonu laa koy doxalaatee bu soobee yàlla waaw ndax àdduna lépp ñaan woy jur bi waaw bu la say papa ñaanalee sa yaay ñaanal la bu ragal dara sa àdduna lépp da nga koy am jaajëf ñu ngi lay jaajëfal parce que xam na ne fi mu toll nii gars lay xaar di wax la wax Pawlish non Pawlish sama koy waxtaan moom muy mer di yéeg dama ne ko yéen dama seetlu yéen lu jubóo seen biir parce que démb moo ci mi ngi doon saaga ki nga xam ne mooy Pascal te Pascal bras droit Wally Seck moom mii day gën a di wax lu nekk Omaro n'importe quoi parce que li mu koy wax moom moom dëgg man xam naa li tax mu koy wax loolu la demee loolu laa ko wax yéen xanaa xamoo yow yaa dàq yow yaa gën a bon aadama. maa gën a bon aadama mais fu ma neex dem ci réew mi de. waaw mais foo neex dem ci dem ci réew mi parce que mënoon nga xaritoo Omaro wala nga xaritoo ñeneen ñi mais da nga dem seppi Adamo waxkat bi yàqkat bi nga dem xaritoo moom foofu laay waxee kon maa ngi duñ benn waaw mais mënoon nga bañ a xaritoo ak mais mënoon nga bañ a xaritoo Adamo parce que Adamo day weer na fi bàyyi sax weer fi amul ah weer fi ñëpp yow nga dem di xaritoo moom ba pare defoon na moom laay waaw mais d'accord mais man mais man mais man fi ma nekk su ma tee loolu amu fa ñun loolu xiroo du ngaa ñun ñëpp benn non label yëpp am problème mais ñoom ñu koy defee ñun bokku ci waaw mais d'accord naa man sama bon moom sama bon moom nangu a ko mais moom laa yox moom Pawlish waaw non non yow ku baax non d'accord man ñëpp mën ko ñaaw parce que yow mënoo nekk Faramareen chaque jour ngay jël Omaro ko yàq lu mel ni xeteme jël Adamo teg ko taf lu mel ni xeteme yàq ay lu mel ni xeteme te ñoo ñëpp ñu tey liggéey di prouver yow nga dem di xaritoo ku bon kooku loolu ma jaaxal fi nga yàq Amady ba Amady tànk la waaw d'accord non loolu d'accord naa. damaa toog waaw léegi maa ngi yow dama man damay langu man d'accord naa. kon Amady dama tànc non oui non Amady maa ko tooñ. maa ngi koy jégalu man ma problème moom mais moom laay wax. Ah, dafa delloo avance bi. moo moo gën a tàppal ci ñi ci diine diine vidéo. te moom nee na te ne moom seen ceinture noire la. ceinture dara kii day ceinture dara xam nga dama liggéey ba ñëwaat dégg nga mais nag yow Adama yéen Adama moo tax. Ah, mais maa ko tënk yaa gën a bon ñëpp. mais man mais man du ma def. yow yow mënoo dëkk Sénégal mais man mais man du ma def. yaa gën a bon ñëpp. mais man du ma def ñoom daal ni ñu amee ba jaaxal na ma il faut ñu yàq ne rek bu tàkk. ñoom ñoom il faut ñu yàq nit bu tàkkee naan ma waaye day bàyyi waay ma ne ko loolu ma ne ko loolu moo la gën a caat la waaye bàyyi waay bàyyi ko de yow yaay bàyyi ba mu taxaw waaye bàyyi waay waaye ban bës dafa ñëw fay ci làng bi dafa ñëw fay ci Pape Diouf di toj Sidi Diop di toj Ibra Naajo di toj yaa ngi may dégg ma Ndiaye Seck di toj mu ñëw réer ci carte gi fay comprendre nga ñu bëgg léegi ngeen xamul lu muy def mu ñëw créé bat bës mais nga jëm yàlla jaxatalaa bi mu doon way neexoon na na ko na ko tekkil waaw waaw d'accord naa loolu loolu amul problème non yow ñëpp xam na ne wax dëgg yàlla loolu am problème